asalaamaaleykum waa Sen Mobile TV tey dañuy ñëw tey si une nouvelle vidéo euh, vidéo bi dañ leen wan tey nag ngeen mën a defee portrait si seen iPhone comment faire portrait avec votre smartphone iPhone tout d'abord da ngay dugg ab soor boo duggee sur App Store nga xaar mu recherche bu recherche si barre de recherche bi fii ngay recherche benn application bu tudd Focus ngay bind FO waaw COS Focus bu ko defee nga def recherche boo defee recherche moom ngay njëkk gis na li waaw premier résultat bi ngay am moom ngay def. obtenir maanaam télécharger waaw ñu def installer ñu xaar mu installé wu waaw nga bës ok bu ko defee maintenant nga xaar application bi téléchargé wu maintenant télécharger waaw mu ngi nii actuellement di def téléchargement bi dañuy patienté mu téléchargé wu waaw mën nañ pose exemple mu téléchargé waaw maintenant application bi téléchargé wu na ba pare waaw gis ngeen dañuy def ouvrir bu ñu defee ouvrir fii la ñuy indi léegi yëpp da ngeen koy autoriser léegi dañuy def autoriser ñu def ok deuxième bi ngeen defaat autoriser ngeen bës bi ci kaw bu ngeen defee bi ci kaw na leen indi da ngeen defaat retour oh, oh, ok bi désolé su ngeen def autoriser def ok waaw maintenant ngeen def démarrer maintenant boo leen démarrer application bi nii lay mel application bi. maintenant ouvrir na léegi nii lay mel léegi yow ci option photo bi ngay dugg bu fekkee da nga bëgg portrait nii directement da ngay dugg ci option photo bi exemple ñu fi wan leen gis ngeen ñu photo gis ngeen buñ ko fa gis ngeen xam ngeen ne photo nañ ko waaw léegi ñu wan leen léegi da ngeen di bës flèche ci suuf nii boo leen bësee waaw gis ngeen photo baa nekk nii ci kaw léegi ñu bës si photo bi boo ci bësee directement dafay chargé ji nga def na portrait bi nii exemple gis ngeen léegi yow yaay yokk volume bi ba xam affaire bi nga gën a bëgg mu ful wala et cetera gis ngeen yokk nañ li ngeen mu fulee nii gis ngeen gis nga euh, nii boo gis nga buñ bësee ni muy demaatee gis nga gis nga buñ bësee ci kaw airport bi gis ngeen xaw na def arrière plan bi noonu genre ful gis nga bu ñu yokkee bu ñu wàññee désolé gis ngeen ni muy yaraaxee léegi bu ñu yokkee gis ngeen ful bi nii gis ngeen au contraire nii lay demee léegi euh, dañ leen wan naka la ñuy enregistré boo ko bëggee enregistré ci kaw ngay ñëw benn flèche bi di nga flèche yu enregistrement ba la ci kaw ngay cliqué bu ko defee nga bës option bi ci kaw di nga fi la defal enregistré du copie fa ngay cliqué bu cliqué foofu nga xaar mu def traitement bi bu ko defee mu enregistré ko mu ngi nii gis na maintenant defal na la image enregistré léegi mën nga génn bu ko defee nga dem si sa galerie waaye boo demee sa photo exemple boo demee exemple ñi dem ci photo bi waaw photo bi mu ngi ne la dégelé mu ngi nii ci kaw nekk bi ñu duggee ci photo bi waaw bu ko defee ñu ñëw ci yi euh, ñu enregistré mu ngi nii ci suuf gis ngeen mu ngi nii gis ngeen photo bi ñu njëkkoon photo ak bi def portrait bi ñu njëkkoon photo moo nekk nii waaw gis ngeen bi ñu def portrait xam ngeen am na différence waaw deuxième pàcc bi moo nekk nii fi dañ leen wan nag ngeen mën a jëlee benn image ngeen def ko portrait exemple benn image bi nekk boo xamante ni photo leen ko directement mais image bi da ngeen ko bëgg a def portrait exemple dañu dugg nii suñu galerie bu duggee nii. oui maintenant da ngeen di xool image bi nga xam ne bu ngeen ko bëgg ngeen ko def sous forme de portrait exemple ñu balaye vers en haut ñu yéeg ñu xool benn image boo xamante bëgg nañ ko def portrait exemple ñu wàcc. waaw exemple ñu xool image bii nii euh, dégelé image bii bii ci digg bi ñu cliquer ko bu ko defee ñu bëgg ko def sur forme de portrait gis nga boo ci cliquer automatiquement day def analyse bi dafa loo ko portrait gis nga boo leen xoolee gis ngeen gis ngeen si ginnaaw xam nga def arrière plan ne la na ci ginnaaw gis nga buñ ko wàññee gis ngeen ni mel lii mooy naturellement léegi buñ ko yokkee xaaral buñ ko yokkee da ngeen di gis euh, am na changement gis ngeen gis ngeen ci ginnaaw xamul na ko def mu ful gis nga boo yokkee si day gën a ful gis ngeen ni na dëkk partout waaye nii la ñu leen di wax ngeen abonné ci chaîne bi ba beneen vidéo ok merci